kii bi lamb bi daa tàkk wala tàkkul lamb bi tàkk na wala tàkkul. toog leen toog leen. ndax ñëpp tëjee na wuñ. ah jàll jàll. loolu mooy problème. ça va ça va. yëgal si kaw birig waaw maa ngi déglu day jàll dama yëgal Dame. day bañ flash la. waaw day def flash bu tàkk. d'accord. काढी एक सौ vat loo bële vat loo bële nañ fa dem wala bële ñu dem siñ may ma jàll ñu si gannaaw si xeer may ma jàll si xeer bi nag xaalis ñu jàll xaalis fee laa bëgg dugg si xel mën a jël filmé ko. mu Allah. jëloon jëloon Amen. dere ngeen jëf yàlla su borom nangu ci bu di ñaanit li nga xam ne moom la sëñ Muntaxa santaane tey tam neex lool ngeen jaare si fii ci kër Seex Ahmadu Basiru Seex Ahmadu Fadal yendoo ci yàlla ko yàlla nangu ci barke Seexu Fatim di ñaan it Seexu Basiir yàlla na ko lool te wér kon da ngeen di maase déglu rek ñu jox kàddu bi Sëriñ Mamoor ñu jox mu wax ci kàddu sëriñ bi sëriñ bi ñaanal nu nu teewaat fi waxtu buñ ko wootee yàlla ko fekk teewaat ci barke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 ñu ngi leen di nuyu ginnaaw bi mu sante borom bi subhanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sant Cheikhul Khadim jaarale ak cantam ci Cheikh Mouhamadul Fadal ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ nee na ginnaaw cant gi ñu ngi. ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér kon li mu naa liggéey Sëriñ Tuubaa lépp liggéey na ko te ñu ànd ko moom mu mel ne dañu xam ndax sëñ bi mooy nuyoo wala ñu wuy si woon ñooy nuyoo xam naa dañuy nuyoonte nuyoonte boobu nag mooy tënk rek kàddu yi kàddu bu njëkk yi bi nee na ñi ngi sant ñi teew Touba tey ñëpp di ci beral ak cant ñii teew fi moom tey di jiital ci cant googu yi jàngkati xasida yi nga xam ne ñoo dikkoon ngir def si li sëriñ bi digal ñu leen di jiital cant ñu doon yëkkati ak foofu kuréel mën a bàyyi koo ñu doon duus ak ñu mën a duus sëriñ bi nee na ñu leen sant di leen ko fekk ñi nga xam ne ñëpp bokki taalibe yi dëkk yi waa fu ñu mën a dëkk ñu wuyu si woote bi indi seen i bernde indi ay xéewal indi seen i café mbaa ndox mbaa lépp loo xam ne dana yeewee ni ñu jëfe digal bi sëñ bi nee na gis nañ ñu leen ci sant ñu leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na ko gën a man ci barkeb sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sëriñ bi la ci topp mooy taalibe yi di dikk nañ wuyu si Serigne Touba mooy seen Serigne moom ñu suñu bopp moom la toog ba mu ko mu woo ñu Touba ñu def loolu nii mu ñu ko def loolu moo xam la tax du ñu ko def loolu. yi nag bi ñu jógee si suñuy kër ci fajar wuyu si woote bi amuñu woon benn bëgg-bëgg bu dul ñu wuyu si Serigne def li mu bëgg-bëgg boobu rek la ñu yàlla suturaal nañ ñu nag bàkke ànd koog yow. bañ ko tàmbalee ba mu egsi fii mu egsi ah def nañ ni jàpp ne moom la sëñ bi bëggoon ñu def benn bëgg-bëgg wala bu dee dañ koy am foo koy tàmbalee mooy nga ñaanal ñu liñ doon def mu dëppoo bëgg bëggu sëñ bi liñ doon def na dëppoo bëgg-bëggu sëñ bi la ci topp ñu war koo am ay aajo indaale wuñu ko amul benn aajo bu ñu indaale bu fekkee am na ñii fi teew mooy ñaanal la nga yàgg fi mooy ñaanal la nga yàgg fi wér gudd fan ba li nga bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa di yëngu Cheikh Abdou Fall lépp nga réewul seen bopp nag amul genn tànn amul genn tànn ay taalibe daal yoo xam ne sëriñ bi moo leen woo ne lii laa bëgg ngeen wuyu see ma ñëw nañ wuyu si ba noppi lañ waroon bëgg lépp Mbàkke jaar nañ ko ci bàyyi ko sa loxo di sàkku nga bëggal nu lu la gëntiwul wala la si lu gëntiwul lu ñëpp ñu jot loolu rek moom fekk am na ibadu la la lay doon ak nga yàgg ci lool du wér lool ba li nga bëgg liggéey ñëpp nga liggéey loolu daal mooy mooy ñaari kat yi ma ko jëndee gi rek sëñ bi mooy nuyoo wala dong yee ñooy ñëw ak bis bu mu tey tamit bis bis bu ñu war a wax dañoo woote woon digal ñëw wuyu si def nañ ko ni ni ko sëñ bi waxoon bëgg-bëgg bi mooy nga ñaanal bu dëppoo li sëñ bi bëgg rek ñoom sëñ bi bëggee woon loolu rek mooy li mu lay ñaan ba ñu topp mooy li ñaan lépp dina yaakaar ci bis bi ci murid bu def ndigal mooy mbàkk nga yàgg ci lool te wér lool te moom murid yi saa su sëñ bi woowee ñu mën a wuyu si ñëwee ni ko bëggee indaale xéewal indaale jàmm indaale xol yu fee xol yu set xam ne dañ neex a duy boobu ñu delloo ko suñu bëggoon moom suñu bëggoon ñun ñu am ko xam naa waaw kon daal si daan sant ñëpp rek di gërëm ñëpp di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha mu yàgg si ba ay yéenam àgg li bëgg li ñu bëggal ba tax mu woote woote bi yàlla ko am ci moom di barke sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul yàgg fi lool dund kéemaan saa su gëstoo li ko sëriñ bi waxee yàlla am gis sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne rek tey nañ bis wax ndax jëf ngeen jëf ni mu rafetee yàlla dajeel ngërëm sëriñ bi ñu am tënk ko lépp. waaw sëriñ bi ñu ngi sant bu baax mbokk mbokk taalibe yëpp ñu sant bu baax di gërëm di la débbalaat suñu bopp di ngi sa ginnaaw ñu la déglu foo joxañ foofa la ñuy xool foo dox jëm sa ginnaaw la topp loolu ñu digal la ñuy def saa suñu wuyus tuwaay bu ñuy wuyus la foo dox jëm ñu am xale ñu sant bu baax. ñu gërëm bu baax di ñaan ma yàgg tey jégalu ci kàddu bu baax a baax ñàkk ñàkk njub rek ñàkk tegu ñu ci xam naa ñàkk waajal a moo ci moo ci moo ñu ngi sant bu baax tey loolu baax bi nee na nañoo ñaan mën nañoo tàllal loxo yi ñaan kenn déglu waay digal ba beneen yoon. leen ñaan yéen ñëpp tàllal leen te nangu ñaan amiin amiin mbokki taalibe yi sëriñ bi dafa wax ne li mu waroon ñaan di ko tudd daf ko dugal ci biir ñaanu sëriñ bi rek nee na lu sëriñ bi ñaanal rek loolu yàlla nu ko am te ñu maase ñaanal ko mu gudd fan lool te wér ba suñu borom dimbali ko ba ay naaram yëpp ak te lépp ñaanu ko moom dafa wax ne kon ñun ñëpp nañu dugg ànd ak moom dugg ci biir ñaanu sëriñ bi rek defe na waroon naa ñaan waaye sëñ ba fa mu nekk ñaanagul ginnaaw ñaanagul nag nañ tàllal suñuy xel tàllal suñuy xol suñu yoxo dëgg fas yéene dugg rek ci biir ñaanum sëñ bi lépp lu ñu ñaanal rek yàlla mu daal ñu ñëpp barkeb sëñ Tuubaa xarit loo fa ñëpp tàllal na ñëpp tàllal tàllal leen loxo yi amiin amiin bismillah amiin amiin amiin amiin amiin Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. nee na sëñ sëñ bi nee na mi ngi jébbalaat boppam moom. ak mboolem ku jublu ci kër gi di ñaan yàlla suñ boroom jéggal ñëpp ku fi dugg rek te bis bi tax koo jóg mu jaar si fii nee na ñaan ci barkeb Seex Fallu suñu jéggal bopp kenn dara ak ci Sëriñ jërë ngeen jëf. yàlla nga fi yàgg